حفظوا asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi noo ngi nuyu mbokk yu baax yi nuyu mbokki taalibe yi bokk julli yëpp ziar ñëpp sant ñëpp noo ngi gën a yeesa sunu cant sunu borom nu booleeg sëriñ bi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 tolluwaay bi jamono ji corona lu ko waaye wax tooñ ko ndax suñu boobu mooy def mooy dindi korona suñu boobu danoo sàkk sàkk ko muy wéy ci ndigal luñ ko digal mu def ko fu ñu ko yemloo mu yem fa xanaa nun kay nu war a seet suñu bopp nun ñi nga xam ne doo nekk ci diggante sikki sàkka lu jiitu weddi akuk déng-déng yi nun doomu aadama ñun ñëpp li ci ëpp ci noonu rek la nekk ñi ngi déggante weddi ak ngëlëmte ak réer kon noo war a jugaat jóg suñu bopp seet suñuy suñ suñ tolluwaay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 jenn xalaat walla jenn tiitaange wala ñu togg togg suñu bopp jenn fitna lu nu nu bu nu xëttewoo dara lu nekk ci li war a nekk mooy sax dàkk ci jaamu yàlla sax dàkk ci sëriñ si liggéeyal sëriñ bi ni mu ko doon defee diggam ak boroomam diggam ak yonent bi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 sëriñ bi te fas yéene rek nekk rek ci li mu nekk loo muy li mu nekkoon rekk ak lu mu nu jafe-jafe te dooloo ko sëkk ndax fàggul nañu lépp lu mu nu war a fàggul tey ëllëg fàggul ko lu mu war a ñaan boroom tey ëllëg ñaan na ko te jubóo muy pàgg bi tey bi jubóo na ci bu dee ñaan bi boroom nangul na ko ko kon kay dara warul waxtu wu ne ñuy gën a wéetal yàlla waxtu wu ne lu gën a sax ci jaamu yàlla sunu kem kàttan loolu mooy sunu wartif euh, àdduna moom mel na melo bi rek laa mos sa mos a jàgg kon tolluwaay bi mel na ne am nay fitna am nay ay tiis am nay ay jaaxle waaye yooyu yëpp du ci dara bu nu nekkee ci leen war a nekk du nu yëg fitna fitna jenn ju nu yaa ju nu gàttandu du nu jaaxle ci dara ci met mbir kon li nu li nu jikk loolu rekk nu jikk wéetal yàlla sax dàkk ci jaamu ko nekkal sëriñ bi ci li bëgg doyloo ko ci lépp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 insa wal jinna illaa liya'buduni wa loolu rek bay na sëriñ bi moom looloo ko fi andi woon moom la fi nekkee woon boole ci nag di gindi jaam ñi ci seen boroom di wommat jëmale seen borom sëñ bi loolu rek la fi nekkoon looloo ko fi andi ci loolu rek la nekkoon kon nag ñun sant rek lañ war a def sun borom mi boole booleeg sëñ bi sant sëñ bi nga xam ne doon sëkk biir bi tey ëllëg sax ca dàkk nag eh, ñoo ngi eh, jéggalu ñëpp. mbalu mm, xaq ñëpp di ñaan mu bàyyonte xaqam ñëpp eh, loolu nga xam ne mooy sunu mooy sunu mooy sunu liggéey buñ ca nekkee eh, ak ak jariñoonte rek moo ci juddoo ak ku laa diirante ak ku dimbilante loolu rek moo ne moo ci juddoo kon nañu góorgóorlu bu baax nañu góorgóorlu bu baax a baax loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne eh, sama bopp mooy moom laa ci jiital ñu jiital ca samay bokk samay bokki taalibe sama bokki jullit loolu rek mooy li nga xam ne dara jigunu ci junug àdduna gi waxuma laa junug àllaaxira gi dara jigunu ci loolu taxaw tem ci li ñu fi jaamu yàlla te sax ja dàkk gannaaw ban ko wéetalee nag ci lépp xam ne mooy def mooy dindi noo ngi sant ñëpp di ñaan sunu boroom ci mbaaxu sëriñ bi tolluwaay bii nu toll mel na ne tiital na ñëpp waaye dan faaw nu ñaan sunu moroom jàmm yëpp suñu mbokki jullit yëpp suñu mbokki taaliba yëpp yàlla daqanu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 xam nañ ne jaamu yàlla moo moo moo yombul waaye mel na ne kenn ku ne ci ñun ñu ngi ciy def kem kàttanam waaye nag màggu son sunu borom bi mu néexu sa jox jox ak xam bu ñu xamoon lenn loo ko xam ne dina ko jox àqam ñu mën ko ñu mën ko ñu mën ko junj mooy julli ndax la jiitu ci lu war a jaamu war sax ci jàmm ga nu nu nu nu taaw mag ak suñu borom bi ca kaw te loolu ci lu rekk lañ ko mën a feeñale kon lépp loo xam ne moo ni dimbali ba suñu jaamu ñu jiital ca euh, yëkkati màggu suñu borom gi eelaawu kalimatillahi loya moo ngi ñaan bu baax a baax borom gàddunu gàddunu nag tawfiq sëñ Tuubaa ba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 loolu gën ji mi moo ko wax kon euh, su borom jaam moom yëkkati mag màggam gi rekk la te loolu mën nu koo def ba def ci ba jox ko ak àqam moo loolu mooy mooy junj junj boobu waaye nag alhamdulilahi rabbil alamina mën na noo am xel soo xel mën na noo daal mën naa daal bu baax a baax a baax ndax sëriñ bi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 kon ñoo ngi sant bu baax a baax te xam ne eh, gis nañ taxawaay yi eh, li li li ngeen ci man lépp def ngeen ko eh, waaye suñu borom moo demee noonu te sëriñ bi kenn mënu ko roy kon noo ngi ci diggante boo xam ne xam suñ bopp xam suñ warti fi li ci góorgóorlu suñ kem kàttan loolu rekk moo nuy dimbali dundu bari na gàllankoor lool ay ay xat-xat kon dañu ñaan rekk su borom gën noo gindi ci boppam gën noo gindi ci sëriñ bi nuy gën di mën a wéetal yàlla di sax ca dàkk di gën di xam sëriñ bi di ko gën a dundu